dañu démon campagne électorale ci jamm ak salam mom lañ ci woté won yalla dogal paré nañ campagne bi gagné nañ commune refisku, bu refisco gagné refisco os par Lamine Diop kon euh, refisku, os par Lamine Diop par la ville kon yakar na ni képp ko xamné da ngay taxaw ni da nga bëgg jël ville de refisco da gagné wo commune yaakaar na ni lolu manul né ta du nek fi ci tangé la euh, coalition gëm sa Bob, mon modem élection gagné na commune gagné na ville de refus pour nous ñu éviter benn télescopage di am ci dëkk bi Moi, tax ñuy wax le président de la Macky Sall mi nga xam ne moom moo autorités ministre de l'intérieur ak le préfet le gouverneur ñu wane ni le le candidat Aline Mar ak xale yi mu andalon jël nañ ville de Rufisque ñu jox ñu sunu ay caabi.

yéen ñi nga xam ne yéen a àndoon ak ñun ci xeex bi ñu di leen sant bu baax di leen gërëm man la Lamine Diop kandidaa gëm sa bopp rifis Rufisque Est ànd ak suma papa Aline Fall Mar ak ñoom Malick Mérico ak Père Mbuub ñoom Njaga Njaay ak ñëpp ñu liggéey liggéey bu rëy yàlla may ñu ndam ndam lu sedd a guy ndam lim ñu may nag képp koo xam ne ya na ne da nga bëgg dindi rek c'est parce que da nga gisul da nga xamul deug ndax suñu papa Aline Fall Mar commune nord euh, commune ouest fa gagné normal kian du ko laam-laamee tay kon su fekkee mom gagné na commune ouest ñew man ma gagné commune euh, est kon tay ñëpp xam nañ ne li ci wara a moy mooy ga ko caabi ville ta mom moy maire loolu mooy wax ji leneen li sides mooy élection yi amuñu luñ siy laam-laamee li père wax rek moom laay wax président Macky Sall na jël ay matukaayam xam ne dëkk bii buñ fi bëggee jàmm mooy man mi gagné es nan ma jébbal sumay caabi nga xam ne ñun dañu pare pour liggéey amuñu leneen loo xam ne rek moom la wax ne nañ ko si lii wala lële nañu jébbal suñu ay caabi jox suñu papa Alioune Fall ville jox ko ouest jox ma est ñu liggéey ak équipe ñu andal ñun dañu and ak suñu goor gi ki ñuy wax monsieur Alioune Alioune Fall Mar and ak ay ndaw doon liggéey tay ku dégg fu mu gañee moom di koñam di communam di feefam muy Rufisque Ouest il a gagné largement donc tay candidat yi ñuy wax yépp du du du yeewi askan wi mo gagné ci ben côté gagné fa du Ismaïla Madior moi, mi nga xam ne feefam Lamine Mi da ko fa à Arafat donc bu ñu indi un problème ci Tëngéej aujourd'hui même nous avons dit que nous ñu jox góor nous caabeem mu liggéey Tëngéej ak ay doomam ak ay frères Regardez cette mobilisation de force cela prouve qu'Alunmar est le maître du jeu le problème qui se pose c'est qu'Alunmar a battu des gens de sa génération il les a battus dans sa coalition. Mais il a pris des jeunes dans le nord et dans l'est à la personne de Lamine Diop, à la personne de Merigo, qui ont battu des adversaires de grande envergure. Lamine Diop, qui est notre représentant à l'est, a battu le représentant de la République. Alors, Merigo s'est battu pour battre ses partisans dans le nord. Qu'est-ce que vous voulez c'est la population rufisquoise qui est là debout. La population rufisquoise qui demande la clé de la mairie de ville.